mbir Boffa Bayotte atte bi daanu na Oumar Rampoy Bodian yoon setal na ko waaye René Capain Bassène day des ci kaso bi coowal ONAS pënd bi wëreegul procureur de la république dina déglu Thierno Alassane Sall député bi dafa déposé ab plainte di sàkku yoon daal di leeral mbir yi beneen coow bi yoon bu porub Ndakaaru njiit la Waly Diouf Bodian joxe ay demande d'explication syndicaliste yi àndul ci dakkalub contrat lu ëpp juróom-ñaari téeméer ci ay assemblée nationale Tambali à possession extraordinaire député yi am nañu fukki fan ak juróom ngir japp aw date bu ñu mëna saytu projet de loi bi ñël mbébétu président de la république tas au conseil économique social environnemental ak au conseil du HCCT. xibaari bitum réew Georges Déthié Diop lañ ci andal tagat yaram Malal Diagne Junior. gis-gis ñu fas yéene waxtaanee fat bakkan gi tàmbali takkar naa sa ci réew mi asalaamaaleykum mbokk yi. Fama Dione. Ba moo nekk ci technique bi dañ koy tàmbaleek beneen bakkan bu rot te bàyyi ko ci doomu loole nag ma nga am ca Guiya di gox boo xamante ni soriwul Podor ab xale bu góor nag moo fa faat xaritam. moom nag gendarmerie teg na ko loxo Mamadou jàng suñu ndaw la fa yaag ñuy xamal ni kon enquête bi tàmbali na. ñu ngi lay fay faama comme euh, ni nga ko waxee mbir mi noonu la amee ndaxte démb si ngoon si guddi la jàppante yi daal di am euh, fees ak yaa nekk gox boo xam ni digganteem ak Podor ñu toll si juróom-ñaari kilomètre ginnaaw ba ñaari xarit ñaari xarit yi jàppante jàppante boo xam ni si la kenn ki daal di jëlee paaka daal di jëm keneen ki mu daal di faatu sa saasa loolee nag ba mu xewee la ñu daal di woo ñii di waa gendarmerie ñoom nag bi ñu ñëwee lañ daal di jàpp ki ñu foog ni moo daal di faat ki nga xam ne mooy xaritam bi te moo mile sax at yi mi ngi toll si ñaar fukk faama di fàttali ni ki nga xam mooy néew ki nga xam ni moom la ñu daal di jëm paaka bi fi mu toll nii néew ba ma nga sa morgue bu centre de santé bu podor fa ma jëloon na. jërëjëf euh, Mamadou Diagne euh, yu bis gi ñu nekk nag daanaka li bakkan euh, rot bëri na fële ca Tiwaawoon pël lu nu mel am na fa démb ayu bis gi nag bi ñu koy tàmbali altine gi fële ca Grand Yoff ca boor yi daaru Amadou Diallo lañu ñu fa faat bal lañu ko dóor mu daal di génne àddina du ñu fàttit ayu bis bee ñu génn faatuk Aziz Dabala ak yi ne ñu noo ko def nag ñoon yóbbu nañu leen kaso kon ñu def leen mandat dépôt ñu dem nag ca Ziguinchor fekk fa Lamine Ba lamin mag lay nuyu. lamin coowal ba fa boyot daanaka mbir yi leer na léegi procureur àtte euh, bi nga xamante ni moom lañ doon xaar ci euh, audience appel bi kon tey leer na lan nga ñu mën a wax ci mbir yooyu la. waaw liñ ci mën a jàpp maam mooy euh, tribunal mujjee settle euh, setal euh, der ki nga xam ne nag moo di ampoy booñaa lépp li nga xam ne daan nañ ko ko toppee ba ba tax ñu condamné woon ko ci bu njëkk ba donc nañ ko setal der donc moom dañ koy bàyyi bu ñibbi këram waaye nak ki nga xam ne moo di René Capin Bassène moom dafay des ci kaso bi ndaxte tribunal dafa jàpp ne moom loxoom laale nag li nga xam ne jot naa xew ci juróom-benn fan ci weeru janvier ci atum deux mille dix-huit moom nag li euh, mujj nañ dëggal li nga xam ne moo di euh, euh, tentative d'assassinat ak li nga xam nag moo di association de malfaiteurs bi nga xam ne moom lañ ko condamné woon atte bu njëkk ba donc jamono ji dañu mën a jàpp daal mooy empr employé Bodian moom dafay ñibbi këram waaye Rewmi Quotidien Mbasane dafay des ci biir kaso bi avocat yi nag wax euh, na xolam euh, euh, nekk jamono ji ci naqar loolu ndaxte ñoo ngi doon jooy bu ñuy joxee li nga xam nag moo di verdict bi ci cour d'appel bu Ziguinchor jërëjëf Lamine Ba kon ñuy fàttali ni jéey jooju mi ngi amoon juróom benn at ci ginnaaw ñu fàttoon fa fukk ak ñeent ci ñoo xamante ni dañ doon euh, dagg garab moo nekkoon seen métier loolee amee woon foofu kon ginnaaw coow li kon nag juróom benni at ginnaaw bi la ñu def verdict bi nga xamante ni moo ñoŋal procès en appel bi li dañuy dellu si fii ci ndakaaru deseg wàll yoon ak mbir bi nga xamante ni moo ñool moo ñeel wàllu mbande filao ba nekk ca boori Géejawaay ak li ko wër jëm Malika verdict deuxième recours bi nag ñu ngi ko doon xaar waaye ñi nga xamante ni ñoo di association des jeunes pour l'environnement ñi nga xamante ni dañoo taxaw taxawaay sàmm mbande filao yoon defandi àndul ak ñoom ñoom nag dogal gi nee ñu métti nañu ko Mamadou lamin Diagne daal di ne li nga xamante ni juge yi cour suprême def nañu ko andul ak li ñuy sàmmonte ak alom bi ñu déglu ay kàddoom ci micro Nafisatou Silla juge jël décision am mu ne dafa rejeté recours bi nga xamante ne AGE defoon na ko pour protéger bande filao gis nañ ne si waxam wax na ne violation yi am na wax na ne étude d'impact environnemental amul rappelé na aussi ay convention de Paris sur euh, la limitation des gaz à effet de serre rappelé na yooyu yëpp rappelé na aussi li tax état bi di maintenir la décision mais malgré daal wax yooyu yëpp li ci gis moom mooy que dafa ne après tout le recours de AGE est rejeté maintenant ñun laaj nañ ko lan moy war a rejet boobu mais mom ñewul en détail daf ñu ne xaar leen di ngeen jot décision bi ngeen ko jotté di ngeen xam lan moo nekk ci biir lool nak je pense que dans un tribunal bu fekkee ñom dem nañ ba jox ñu parole pour ñu mëna appuyer suñu plaidoyer buñ ko rejeté war ñu wax né li mo tax ñu rejeté recours bi mais malheureusement lool lañ jotul wax ci jugement bi ñoo koy ñaawlu bu baax parce que tay ji aduna bi yëpp foo dem

mais aussi consulter euh, suñuy conseil avocats yi xol li nga xamantene peut-être mën nañ ko defaat comme action tay jii comme fofu dañ ko déclarer ba dagg filao yi war fa tabax ñun ba légui mën nañ intenter ay recours parce que yépp ay ay ay xétu violation la coowal onance bi lañuy waxtané fofé nak nag pënd ba wureegul ni ngeen ko xamé ki nga xamante modi Cherno Alassane Sall dafa bind ab plainte mom daal limu bëgg moy yoon daal di léral mbir yi digënté Cheikh Dieng newoon fe jamono njiital onance, ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement di Cheikh Tidiane Dieye mon cheikhno Alassane Sall xamal nañu ni procureur dina ko de fii ak ñaari ayu bes ñu deglu ko. dañu ñu yóbbu plainte bi ëpp na une semaine léegi ay bés ci procureur bi mu ne ñu ne ñu nekk fii léegi fukki fan ak juróom dinañu tontu dañ jàpp nag ni li xew te mu di loo xam ne ñi ko séq muy ay kilifa jàpp nañu lu ñuy wax ni du waxantu mu dem ba ñu dàq ñu ñu dàq ci kenn ci liggéeyam ci postam ci ngeen jégal ma ci kàddu bi ñu wàññi ci kenn ci liggéeyam muy Cheikh Tidiane Dieng mbirum oto bi ak yeneen mbir yi war na tax procureur ci boppam ñu ndax dañu ñoom ñoo woote jub jubal jubante ndax xam nañu am na fi juba di woon am na ay yu fi du woon jaar yoon ñu nit ñu dund ko ci affaire assainissement bi parce que inondation yeeg fosse yi ball yi ci mbeddu dakaar ak jafe-jafe yi ñuy dund yëpp dañ ko dund ñun xamoon nañu ni am na ay mafia bu fa newoon ñun waa république des valeurs. waaye ba léegi di ci njoxt lañ toll. ñun waa république des valeurs dañ ci def ay taxaw gëstu dem fuyee ci ARMP maanaam ki doon atte mbirum marché public yi mu am lu mu ci wax ci ñaar ñi ñu bëgg dugal tey. ba fi DG bu fi newoon ci temps Macky Sall te amul lu bëri lu ko doon reproché mbir mi demoon ba Cour suprême DG boobu bañ entreprise yooyu noonu mu doon favoriser ñooñu tey la ñu newaat nañ leen delloo mbir mi alors que njort nañu ñooñu war nañu am responsabilité yi ñu doon dund ñun ci jamono yooyu

Niel, le président de la république d'Adi di dindi conseil économique social environnemental niki HCCT député yi kon am nañ fukki fan ak juróom ngir où nous avons aw date projet de loi boobule kumba Sanjaan Fayi, tey mu xëyoon dem ci nationale nous déglu ci 11h ak lu tek amout débat ndax amut ordre du jour ci sasi le ko yëkëti ubbi tepp inaugural ndax ñu mëna amal ay séance plénière laata président assemblée nationale di jóg la convoqué à conférence des présidents des commissions ngir mu ñëw wuy ci leen ñu mëna dal saisir commission des lois ci fond bi le dossier ndax dañu wara a fixé calendrier ñen liggéey yi yu ñu wara amal ci commission technique ak plénière wara se sa ci cip liggéey bi leen président de la république euh, santou député yi war ñoo wess fukki ak ngir le projet de loi Bobé ngir a une obsession extraordinaire assemblée nationale ci examiné bi examiner Bobé projet de loi bu L'Assemblée assemblée nationale mu supprimé supprimer ñaari institution conseil économique social et environnemental au conseil des collectivités territoriales ngir ñu amal Oubité, mëna sëgg ci liggéey bi ci conférence bi dajalé président commission yi ci lañuy ñuy xool ñoom ana ban lañuy amal séance plénière boobee député yu ci mel ni Abdou Bara Dolly Mbaké, moom gis ne président de la république dafa woon saisir en procédure d'urgence assemblée nationale gannaaw defu ko député yi ñoom ci seen bopp waroon nañu ko mën a def ay non inscrits comme Abba Mbaye bu taxawu gisap dellu tepp démocratie fii ci Sénégal ak ab bile démarche njiitub réew mi adopté moom li mu gis mooy waruñoo nangu bépp régime bu ñëw rek indi say institution fii ak gën ko yàgg fukki fan ak juróom dinañu xam ban bés la ñuy woote session extraordinaire ngir dindi am déet conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. coow bi nga xamante ni mi ngi am ci port Ndakaaru ginnaaw bi ñu ne njiit la fa dafa dakkal lu jege juróom-ñaari téeméer ci ay contrats. ay ginnaaw bi nag ay syndicalistes daal di taxaw daal ni ànduñu ci ñoom nee ñu lañ leen bi jox ay demande d'explication te ñu nag nee ñu Waly Diouf Bodian nee na bu ñu ko bindu dal leen di dàq syndicalistes yi loolu la ñu wax ci ab kayit woo xamante ni xaaj Ndiogou Diène tënk na ko. toll nañu ci juróomi liggéeykat yi ñu jox ay demande explication gannaaw coow lu dox seen digganteek seen directeur général Waly Diouf Bodian ne boo moytu sax da leen di dàq teg ci tam yóbbu leen ci yoon ndax dañ ko sosal muy tuumaal groupe boobu ak yeneen i liggéeykat ay statut WhatsApp yu ñu def boole kook fotoom bind ci port le DG donne un marché public à son employé Lon nakniel ñeel mbirum marché et ñu ne Waly Diouf Bodian da ko jox kenn ci ay conseil technique am gannaaw coo loolu juddu ca port autonome bu Dakar ay nit sol nañ seen dàll ngir dox ci comité des sages bu port amicale des cadres amicale des retraités ak tamit amicale des anciens du port ëmb ñu jot yor ndombal tank yi gëna mak mag ci këru liggéeykaay googu ñoom ñooñu fas giseek ñaari wal yëpp di kat yi ak tamit directeur général bi Ngi ngir Dal dal daal di dellusi ci kër ga ciow la ci por nak juddu gannaaw communiqué bo xam syndicat benn liggéeykat yi ñoko ko génne bu yagul di doxali ñu sen directeur général wali Diouf Bodian ñu ñu wax sax ne mom deful jub djubal niko kilifa yi réew mi wootee waaye weñ wengal lay doxal ñu wax kaddu yu ni mel gannaaw biñ fa daqé lu tollu ci 700 di juroom ñaar contractuel waye tamit mbirum marché bi nga xam te dañ ko jox conseil technique bi di Touba Fall fi toll ni nak ñi syndicat syndicaliste yi nee nañu day teggeegum seen tànk ngir xool tànk jàmm yi ñu ci dox fu muy mujje bu ñu amul lu ñu bëgg rek daal di nag jël seen ngànnaay tàmbali di yëngu-yëngal. jërëjëf xaaj Ndiogu Diène jéem nga jokkoo ak njiital port Waly Diouf Bodian waaye antuwul suñuy micro kon ubbil nañu ko bu ko soobee rek ndi tontu ci li ñu koy jiiñ. Nous, wax ci di convention des jeunes reporters nous nag taxaw nañu àddu ci bëccëg bi nga xamante dañ ko journée sans presse nous ñu Fanny ko fan bu dara conseil des diffuseurs éditeurs des patrons de presse de presse du Sénégal nous ko eh, initié woon di patron de presse Miki mi Maram Ndiaye président bu convention des jeunes reporters daal di ni bu soñoon daal ñu waxtaanee lépp ci taabal ji. lu mi ngi waxee kàddu yooyu nag ab atelier boo xamante ko amal seen digganteeg way takk der yi mi ngi Maram Ndiaye ak Oumou Kalsoum li parce que ñun dañoo jàpp ni crise su amee ñi siy gaañu ñun la puisque ñun ñoo si gaañu jarul euh, ñun ñuy dugg si benn xeex pour le moment lu gën mooy ñu dox tànku jàmm parce que ñun médiateur lañ taxawee jamono jii maa yow di dox jàmm pour que patronat ak état jàmm am seen diggante donc ñun kenn bu kenn xaar su xeex parce que Euh, déjà conditions yi métti na suñu bëggee dem say ay ak pour état wala xeex pour patron de presse day metti lu leen di ñaan ñom ñaari parti moy nañu tok autour d'une table waxtaanee jafé jafé yi kenn ku nekk am lo bàyyi parce que kenn ku nekk euh, peut-être am nga dëgg ci li ngay kaas mais nañ tok waxtaanee ko suñu toogul waxtaanee ko solution da am ñun nag tooguñu rek di seetaan noppi nañ waye ñi ngi tek ay djégo yu am solo amul jafé jafé ci diggante patronat ak ñi nga xam ñom ñoo di reporter yi parce que coow su amé ñun ñoo ci gañu mo tax ñu ànd seeg pat pataral trouver ay solution te di ngeen ñu si dégg dans euh, fan di parce que résultat yooyu suñ ko amee dinañ koy indi parce que ba ñu demee si président de la république peut-être ñoom lu ñu gis rek mooy tontu président de la république mais président daf ñun la doon tontu par rapport l'unique ñu interpeller interpellé dañu ko entreprise de presse yi dañoo le benn fiscalité boo xam ne day méngoog seen doxalin kon dimbalil patron de presse yi loolu lañ fa wax ba ñu ak le président de la république Moi t'as nag nekkuñu si coow ñun jàmm la ñuy wootee nañu toog waxtaan ñaari pàcc yëpp pour que jàmm am sen diggante. mi ngi Maram Ndiaye président bu convention des jeunes reporters ñu waxtaanee ngir gi nangu kër yi ca Bargny fofé nak demb ci conseil des ministres président de la république sakku ne ci ñu wutalaat ay dëkkuwaay ñoo nga xamanteni ni gi dafa nangu seen kër RFM nak dem na ca Bargny xool leen nag jafe-jafe yi nga xamanteni ne ñoo ngi koy dundee Salimata Aw. Ndiaga Samb Ndianja Ngumu Ndiayem Ngunjulankar ak Minane nekk quartier yi nga xamante ni moom la érosion côtière bi maanaam géej nangu kër yi sonal ñi ci lorule di wax naka la bis boobule. man ay 7 heures nelawuma ba ay 6 6 demi ma jog taxaw affaire bi di ñëw di ma ne solution amatul buma ma gaawulee génn bagage léegi bi mën daanu sama kooku sama doom ju ndaw ji mu fi ak ah, sama soxna ma si biti aw solution émission ma awa sama benn amoon na nekk fii mu ne ma c'est urgent jëlal sa bagage nga dugg foofu si néeg muy génn suuf su ñuul ndekete boobu suuf soosu suufu bâtiment bi lay dugg nii di ko di ko génn suuf si newoon suuf bâtiment di ko génn di dóor waale si miir bi ci daa ñëw mën a soxna si génn jëlal bagage yi daal jëlal bagage yëpp ñu génne muy ay eh, xale yi yóbbu leen sama néegu jarbaat bari ñi nag wanag kër ya ko fa am dañ koy wàññi rawatina ñi dëkkee ci booru géej gi muy lu leen métti nga sa ëtt sa ëtt bi ngay toog di toogu añ sa bi ngay toog di fóot sa waañ dem na sa duus dem na te duus moo gën a prioritaire si kër mais yow amoo ko ba danga da ngay dem di ko abbi sa morom boo bëggee sangu da ngay dugg sa kër moroom dem sangu ji loolu li gën a métti métti si la bokk amul toilette de toilette amul fii amul fi dara fi mu ne yow xale bi bu doon dem tey cabinet day dem tefes si boori géej bi jonkan yow léegi xale bu toll nii xam nga warul jonkan si géej ndax ci toll nii war na def sutura ba dugg si duus waaye fi amul duus bu ñu sukkandikoo ci ñi géej gi nangu seen kër ni monte ne de amoon na fu ñu leen jox pour ñu dëkk wante centrale à charbon bi moo fa ñëw nekk fa ci loolee ñuy woo nguur gi. ndax lii li ñu bëgg nun waa bari mooy la démantélisation de cette centrale parce que bi ñu ko fay andi dañu ko démantelé woon ci dëkk andi ko place ko goon nag ngalawaay état na ñëw jubal jubant lii fi am ci bari ñu bari ñu rek la am. def fa ab barrage wala brise lame ci lu mu gën a gaawee mën naa nekk saafara wante yëkkati leen tamit lu jàmp la lu ñu war a def ngir ñu mën a dund niñ ko bëggee. bu ñëwee ñu délogé lañ bu ñu mënee délogé brusquement bu ñu mënee délogé brusquement ñu def fi benn barrage. jërëjëf Salimata Aw ñuy wax ni kon daa ngeen déglu reportage bii ni mu gën a yaatoo euh, fii ak ayubis Salimata kon di wéyal liggéey boobu léegi fleuve Sénégal ak jafe-jafe yi ci amoon fan yi nga xamante ni daa feesoon dell ba commencé dugg ci kër yi daanaka nag nit ñu xamal nii mi ngi wàcc bu baax loolu la ñu Ali Bandel ñaa xamal. waaye nag terewul ba léegi tali yu bari ak pont yafa fa kenn mënu faa jaar ñu déglu reportage bi. dexub Sénégal baa ngi di wàcc ci station bu Matam ni ki tey ci suba jóge nañu ci huit mètre onze yegg ci huit mètre quatre donte mu ngi wàcc waaye ba léegi code d'alerte bi moom ñu ngi wéy di ko dépassé bu fekkente ni population yi jamono yi seen dem ak dikk lu xaw a ak ay pont yi nga xamante ni yii kilifa yi ñoo ko tëj yeneen dañoo yàqu dafa fekk itam liggéey bi de forum yoonu Dandemayo

maintenant lu jëm ci pont Louma ji pont yooyu ci nawet bi def travaux confortatifs dafay jafe parce que ndox bi dafa bare mu ànd ak mais déviation bi nga xam ne jotoon nañ ko def seede na état ouvrage yi nga xam ne ne moom moo fa nekk surtout pont bu Louma ji quoi wóorul luy bàyyi poids lourd di ci jaar muy indi ay jéeya pont jamel bi gis nañu ndox ñi bi ñu yéegee dañoo arraché yenn les remblais contigus ba nga xam ne dafa créer ay alvéoles ay trous diggante bi ak ak ak tablier pont bi léegi ñu ngi xool solution conjoncturelle bi nga xam ne ne mooy gën a en tout cas tane gi gannaaw loolee sax ñu ngay wéy di ñàkk rafetlu ñàkk réactivité kilifa yi yore nguur gi yi nga xamante ni boobu ba léegi li mu doomi aadama yi looru ci ndox mi taxul ba ñu sol seen dàll ñëw fi sax ngir wu leen mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM RFM xibaari bitim réew Georges Dëcc Diop lañ ci àndal Georges maa ngi lay maa ngi lay fay euh, Fama. fële ca Burkina Faso waaye civil faatati nañ leen euh, ca bët Saalum réew ma. lu ëpp ñaar fukki victime euh, ci ñu ëpp ñaar fukki civil ca commune bu Sanaba cong googee nag am dimanche am ëllëg sa nga xamante ne ñaawteef amoon ca Barça logo ba lu ëpp ñaari téeméeri doom aadama ñu faat leen fa sooda ci am. terroriste ya nag dañoo rekk daal di amal ab congu ci ab église ca waxtu wa ñuy def seeni prière ci benn village bu ñu naan Kounla ñoom nag dañoo daal di encercler boobu boobule daal di wax nag ni soxna yeeg tout tànk yi ñu daal di dem ca gannaaw ga ñu daal di takk yoo góor ya nga xamante ni ñoo fa nekkoon ñoom nag ba ñu noppee ci loole dañoo rek daal di faat lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn yanu yeewoon waaye nag pareeguñu ba ñu noppee ci loolu itam dañoo taal dëkkuwaay yafa daal di daw nag yóbbaale jur gu bëri goo xamante ni dañ ko fa sàcc ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo daal di rëcc ci attaque meurtrière boobee nag dañoo daal di daw làqu ca Sanaba ca bët Saaluma dëkk ba même sax bu fekkee ni cong googee ca province bu Banwa nga xamante ni ñëpp jàpp nañ ni lu metti la du woon guléet ñuy gis cong gi ni mel ñu jëmale ko ci communauté chrétienne gi ne ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février amoon na benn cong gi ni gu ñu nemmeeku woon ca Esekana ca bët gànnaaru dëkk ba foofu nga xamante ni nag fukki doomu aadama ak juróoma ñoom ñoo ci ñàkkoon seen bakkana ak ñaari blessé yoo xamante ni te loolu yépp tamit ci ab messe dominicale la doom am. jërëjëf Soda Thiam Nigéria mooy réew bu njëkk bu jot dose vaccin mpox bi xeex mpox bu vaccin bi di JYNNEOS ñoom nag egg nañ Abuja ba ñu jot ci ñoom waa Nigéria jot ci waa Amérique ñoo leen ko may Umu Kalsum li Nigeria enregistré na ay cas yu mpox ci fukki état ak ay vaccin am mu nekk don bu gouvernement américain bi le don nag dinañ ko teg ci loxo ñi nga xamante ni ñoo wopp ci juróomi état yi Bayelsa Edo Cross River Lagos ak Rivers fi nga xamante ni foofu la wàllaate bi gën a ëppee fi nga xamante ni foofu la ñi nga xamante ni ñoom la jàngoro ji dal gën a ëppee vaccin bi di Jynneos nekk na vaccin boo xamante ni ñaari dose la te tamit dañ koo jagleel nit ñi nga xamante ni mosuñoo vacciné wu feebar bi nga xamante ni moo di variole loolu la ñu xamle ci prévention variole humaine bi ak mpox bi ci ñi nga xamante ni seeni at dafa toll ci fukk ak juróom-ñett ak lu topp ambassadeur Richard Maïs ma ngay xamle ni choix Nigéria bi ma ngay ñëwaat ci tànneefu Nigéria gouvernement nigérian bi nag amal na ab plan amal na ab plan de vaccination ngir rek am kóolute ni vaccin mi jëfandikoo nañ ko na mu waree tey tamit doowu fukki junni dose yi ñu daal di koy yaxanal looloo tax nag Nigéria ñu sélectionné ngir rek amee loowu vaccin bi ñu tànn ko ngir rek mu jot loo bu njëkk ci vaccin yi muy xamle ne dinañ dinañ engagé wu ci côté Nigéria ci jéego yu ñu def ngir rek jële fi lawal jàngoro ji di variole du singe bu weesoo réewum Nigéria ay vaccin yoo xamante ne réewum États-Unis ki nga xamante ni moo di alliance vaccinale Gavi jamono yi ñoo ngi koy xaar ci république démocratique bu Congo nga xamante ni foofu la jàngoro ji ëppee buñ sukkandikoo ci organisation mondiale bu enregistré nañu ko nemmeeku nañ ko ci continant bi ci semaine bi ñu weesu. ca Angleterre moom ñetti doom Nigéria la ñu teg daan juróom benn ati kaso keneen ñu teg ko daan juróomi ati kaso ca Woolwich Crown euh, Court bu Londres ñoom nag euh, dañu ne euh, liñ leen doon toppee moo di complot ngir yombalal ay nit dugg ci biir Royaume-Uni te jaarewuñ ko yoon ak complot itam jëm ci ay foo document ay faux certificats de mariage ngir yombal immigration. illégale. dañuy dem ci Tunisie ab tribunal joxe na ndigal ni candidat bi di Znaydi na bokku ci présidentiel bi di ñëw. tribunal administratif bi mo deugal recours bu candidat bobé di Mon euh, Monher Znaydi euh, tax nag euh, bu mu mën del wat ci xëccio ba ci présidentiel bi ñu fassiyé yéene am juróom fan ci wéru octobre l'olé la ñu Reuters xamal mi jëlé xibar bobé ci ab responsable judiciaire mu ne nag ñaareelu jugement bu ñu mel ci ay bés gi ñu nekk ni ndax tribunal administratif ba moom dugalaatoon. Abdel Latif eh, Mekki talaata gi ñu weesu ci euh, euh, candidature élection présidentielle boobee ganaw bik commission électorale euh, gantolon dossier de candidature am dogal gi nak dana tax xëcc bi tar qui ci Tunisie té njit la jamono ji di kay saïd bëgg lu mandat élection présidentielle ba ci Amérique Kamala Harris jamono ji dal ci ay sondage mon raw Donald Trump lolu yoy sondage Reuters ak Ipsos ñoo ko def té ñu siiwal ko tay sondage bobé nak di ni xëy na euh, vice présidente bi jamono ji moom daal mu ngi ci xol yi ci électeur électeurs ya euh, ci élection ba nga xamante ne moo fas yéene am juróom fan ci weeruk euh, novembre gi ñu dëgmal lañ koy jeexaleek guerre ba ca Proche Orient Euh, jihad islamiste xam xamle ni euh, faatuk euh, commandant bi ca camp réfugié bi nekk ca Nour Shams ca Tulkarem si Jordanie laata ñu koy xamle sax l'armée bu Israël moo neewoon ni faat na juróomi terroriste te bokk ci ñoom Mohamed Jaber ñu koy gën di woowe Abu Shouja nekk commandant bu brigade Tulkarem bu brigade al

tiim ko porte centrale bi booy dugg ci village bi fi ngay duggee ak beneen porte bi nga xam ne wala nga porte étoile c' est c' à deux minutes trois minutes de marche pas loin beneen bi nii di restaurant central bi aussi euh, amuñu benn problème parce que sori wuñu aussi maximum c' est à à quatre minutes de marche mu ngi nii dañ koy seen ci bi aussi liñ fa soxla pour nekk dans de bonnes conditions mu ngi fa amuñu ben ben empêchement ben problème de connexion problème d'accessibilité amuñu ko on est à l'aise les athlètes sont dans de dans de très bonnes conditions L'objectif bi objectif aussi comme ko waxé rek aller le plus loin possible euh, def euh, def le tout ba def une très bonne participation une très bonne compétition euh, ci loolu lañ nekk ba léegi te yi concentré wuñ boo xoolee même démb sax fête de clôture bi ñu fa dañu défilé après dañu ñibbi pour permettre xale yi mën a mën a mën a noppalu bu baax Euh, tey nag euh, Aliou Dramé moom euh, fileeg si kanam tuuti ñetti waxtu si ngoon gi moo di dugg ci jongante bi ci tiir à l'arc bi ëllëg ci as gannaaw ëllëg ci aser ji Youssoufa Diouf moom moo dee dugg ci jongante boobule nekk nag para athlète ci catégorie 80 kilos en K44 dina dugg ngir teewal Sénégal leneen itam ci wàllu taekwondo ci yooyu les Jeux olympiques itam ki tàggat sénégalais bi def compétition boobule nee na fu mu toll nii lépp jaar na ci yoon ngir ñu mën a fexeen di ba indi Sénégal. raaya Abdoulaye Yangan Ndiaye waxtaan ak Cheikh Tidiane ci waajtaay gi. suñu préparation bi moom mën nañu wax ni def nañ ko ci quatre vingt pour cent kon du ma wax cent pour cent mais à quatre vingt pour cent ça a été quoi préparé yoo xam ne ñu woon arène nationale en regroupement interne vraiment euh, dem ci à fond sama objectif personnel moom mooy vraiment ñu yëg sur la podium waaye am benn médaille sama objectif daal mooy yëg ci podium bi vraiment am médaille loolu daal la ñuy Euh, te ñëw nañ ci jàmm ci village bi jël nañ suñuy repère ñu ngi préparé bu baax ñu ngi ci concentration et dernier virage bi vraiment laa ni yee quoi di xaar bés bi jot ak incha allah ñu def ci liñ ci war a def yàlla suñu borom may ñu dem et on y croit quoi gëm nañ ko waaw gëm nañ ko te wóol na suñu athlète. jërëjëf. ñu woy kon ci phase nationale nawetaan yi orcave bu njaareem mi ngi waajal compétition yi. ñi waajal nee nañ fi mu toll nii donte amoon na ay gàllankoor ak yooyu waaye lépp yemb na ngir ñu mën a nakk dolal jongante yi ci seen dëkk boobu di Diourbel président orcave ba Cheikh Tidiane Dieng la wuyoo mën nañ affirmer ne wax dëgg yàlla on est à pour cent li nga xam ne jublu nañ ci organisation phare national yi li ma jàpp ne fi may wax ak yow nii actuellement maa ngi stade ñuy def les derniers retouches jëmale ko ci wàllu nettoiement bi d'abord ensuite ak li nga xam ne moom mooy décoration bi nga xam ne moom la ñu war a def ci stade bi pour préparer la cérémonie d'ouverture fii ci stade El Hadj Ibrahima Gueye bu Mbacké yaakaar naa aussi tamit disposition yi ñu war a jël yëpp li nga xam ne mënut a ñàkk ak li nga xam ne li tubaab naan utile loolu lépp euh, def nañ ko loolu lépp bon yaakaar naa aussi xel mën naa dal daal bon ASC aussi d'un moment le fait dans deux heures temps il commence à débarquer au niveau de leur site je crois site yi aussi la même chose et sur le plan d' organisation mën nañ wax ne véritablement sant yàlla yaak euh, actuellement fi mu toll daal wax dëgg yàlla amaguñ benn inquiétude par rapport à ça quoi euh, tubarkàlla na ni léegi marché Ocass moo xam nga ko marché Ocass. xam naa ko ba ca Njaareem. Ah, xam naa ko waaye xamaguloo marché Tenjigéen. màggal fa laay duggee. xam nga marché ocas xam nga marché te Tenjigéen moom ndar la nekk moom xamuloo ko ndax foofu miinoo ko. ndar moom demaguma fa. kon di nga dem weekend dinaa la yóbbu. incha allah tubarkal. ok jërëjëf <laughs> association bi assureur du Sénégal ci projet Bidium digitalisation ci digitalisation attestation d'assurance automobile Touba Darou Salam Caro Prestige c'est lait de bébé Doudoum Avec nouvelle prévention routière du Sénégal Tingitelo association bi compagnie d'assurance ici, ñoo ni li ci yéen jëf député yi jël nañu dat le quotidien moo ko bind ci xët bu njëkk ba tegal ñu ci ne ñoom ndawi wi tey la daje ci penc ma ngir càmbar projet de loi bi ñu leen yóbbu jëm ci modifier constitution bi ba jëlee ci réew mi kuréel yi di au conseil collectivité territoriale ak conseil économique social environnemental sud du quotidien nañu lu jëm ci jële giñ fi bëgg a jële ñaari institution yooyu bu doon jongante la

di Vox Populi moom it xëy gàddu xibaar bi ba dañu xamal li ñu bëgg ci assemblée nationale naruta yomb assemblée nationale bu nara xumb te jax yéen bi nee nañu koy bu séntu ko tey ji Walf Quotidien mel ne kuy dànkaafu ñu fi bëgg a jëlee conseil économique social environnemental ak au conseil collectivité territoriale jële gi leen ci bëgg a jëlee yéen bi jàpp na ne paaka ñaari boor la mënees nañ leen fee jëlee gis ci njariñ waaye it mesure bés bi le jour bi mu ne ak yaxanal la gaañi woote ni ñu ko fas yéene defee bokk na ci jële ci budget 2024 bi bépp programme bu ñu gis ne amul solo bokk na ci càmbar salaire liggéeykat yi wàññi subvention yeeg mission yi am bitim réew ñu doon yóotu réew mi kenn ca di Xalifa Ababacar Sall journal la mandaane nañu lu ko dal seddul taxawu Sénégal gi mu jiite bari nañu fa newoon dajale nañu seeni bagage dem seen yoon réew mi ko tëjee nañu taxawu Sénégal xewoon ci Pikine Technopole di faatuk Aziz Dabala ak Boubacar Gano Wali journal bi mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne ñi ñu ciy ba tegoon leen loxo mu di Naboulaye ak compagnie ñoom ñëpp nga ca kaso ba démb lañ leen mandat dépôt di leen toppee tuumay association malfaiteur assassinat acte de barbarie ak vol aggravé journal Les Échos nañu Naboulaye compagnie tuuma yi leen gàll diis gann la def kii di Naboulaye yéenekaay bi mi ngi ñuy waxit ne ay awakaam ko contrôle judiciaire l'observateur nañu moom Nabou Leye sax de caaxaan da koo génnewu ci coow li ndax lu enquête bi gën di dem muy gën di dugg ci mball gi firndeli yéenekaay bi nee nañu mooy ci enquête ba ca la ñu ne moom Nabou Leye ba ay 4 heures du matin mi ngi doon déggante ak ñi ñuy tuumal ne ñoo faat Aziz Dabala ak Boy Wale libération mi ñu jox lenn ci secret yu mu fore ci enquête bi waa division investigation criminelle doon def doole na ci li ñu wax ne li jaaxal ñu ak la ñu waxante ñu wax ci jéyee jeneen ju amati ci réew ubbil sursoa mi ngi wax ne ci Tivaouane Pël fa la xewé ben way bu ñu naan Mamadou Diallo mo ray ami d'enfance bi di Abdoulaye Gueye ñoom ñaar kay bi nee nañu ay xarit yu yag lañu néeg bu ñu daan fanaan sax ñoo ko bi ñu toogee di ci la ko jamee association bi lëkkalee assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile Touba Darou Salam Caro Prestige c'est lait de bébé Doudoum ak nouvelle prévention routière du Sénégal ci njiitalu association bi ëmb compagnie d'assurance yi ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ngeen jëf mbokk yi benn waxtu tegal fanweeri simili ak juróom dikk ak yéen ci ponk bu mujj ci xibaar yi di gis-gis tey ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy am fan yi di fàttin woo xamante ni ñaaw na. Euh, bu ñu jëlee ca pikin Pikine Technopole Aziz Dabala ak yi fii ci Grand Yoff Amadou Diallo mbaa bokk démb fa la ci Tivaouane Peulh ngir li ni mel ñu ngi ci bi ak Diallo Diallo. Eh, euh, docteur en criminologie nga sous-préfet bu Dakar Plateau ci benen wàll gi Khalifa ababakar Diagne lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu lay fay soxna psychologue conseiller kon dañuy ak Djibi Diallo euh, sëñ bi Diallo ci li nga xamante ni moo am fan yi muy semaine bii jàpp semaine bi nga xamante ni moom la ñu romb euh, lii ci am fan yi gëjoon nañu ko dégg noo ko jàngatee. Euh, maa ngi lay nuyu soxna si di nuyu seen auditeur mm-hmm. euh, li ñu war a bàyyi xel mooy dafa am benn sentiment bu ñu ne sentiment mm-hmm. nit ñi li ñuy gis ni nekkul lu bees nekkul lu bees tamit te nekkul loo xam te ne bi maanaam ci Sénégal rek la am di mm-hmm. ci àdduna bi la maanaam sentiment d'insécurité boobu ñuy wax maanaam tiitaange bi dafa uute trop trop trop ak jëf yi mm-hmm. donc ni nit ñi tiitee ba foog ne lii insécurité la du du loolu sentiment la sentiment boobu nag li ko développé li ko développé mooy xarala yi nga xamante ne maanaam dañ koy dañ koy tas dañ koy garaawal ba mu jéggi dayoo mm-hmm. waxuñ ne garaawul parce que bakkan bu faatu rek benn bakkan bu faatu rek ëpp na loolu moom ëpp na mais nag ni ñu xalaatee insécurité Sénégal bokk na ci réew bu ñu gën a sécuriser sécuriser ci àdduna bi jafe na nga gis nit kuy ñëw taxaw mhm. ñu rey la ci mbedd li ngay dañu war a ràññee ràññee ñaari mbir ñi nga xam te ne maanaam day am ci biir kër ci biir famille loolu problème sécurité problème famille la mhm. loolu nag dafa am sentiment bu boo xam te ne ci biir famille bi dañ ko war a xoolaat ci éducation bi mhm. mais li ñuy wax insécurité mooy maanaam li ñuy liy xew ci mbedd mi te boo seetloo liy xew ci mbedd mi pour pourcentage bi des fois faible lool lool lool lool dañu mën a wax ne insécurité la donc il faut ñu bañ a jaabaat insécurité ak sentiment d' loolu mooy benn ñaareel bi nag li nga xamante ne mën na ko waral dafa bari ay pàcc yu koy def lu mel ni euh, euh, enjeu démographique dafay créer benn macrocéphalie bu mag a mag ci biir nit ñi ba nit ñi di dànqaloo ñu am conditions yu vie yoo xamante ne maanaam demeewul noonu enjeu politique mooy ñu jël ay décisions yoo xamante ne parfois mën na nekk décision yoo xamante ne prévarul lutte contre la violence mën na am ay enjeu économique enjeu économique yooyu lu lu mel ni am-am bi dafay xaw a kii ay am ñu am trop am ñu ñàkk trop. Mhm. ñi am nag bu fekkente ne ñoo gën a néew ñi ñi ñàkk bu yàggee mën naan incitement de révolte. Mhm. adama euh, am na aussi ay enjeu social lu jëm ni lu mel ni ndóol mi lu mel ni tamit euh, frustration yi ak euh, ñàkk liggéey bi ak surtout usage drop ak njaayam drogue. Mhm. te bu ñu seetee côté boobu lu lu ci gën a bari Sénégal position bi mu am ci àdduna bi dafay favoriser yu mel noonu parce que bu ngeen xoolee li ñuy jàpp fan yi force défense di ko def. moom dafay créer benn situation am te ne maintenant bu ñu contrôlé wul communication bi ak ni ñu koy amplifier dañuy dañuy tiit a tiit ça ne veut pas dire que euh, loolu garaawul garaaw na. parce que dama ne bakkan bu faatoo benn rek garaaw na hmm. mais lolu moy enjeu nga xam te ne favoriser manam hmm. euh, ñuy wax problème insécurité le Sénégal tologul tologul fofu fu ñu ni hmm, d'accord d' accord dinañ dellu ci waat ak yow ci kanam alors Khalifa ababakar Diagne dégg nga kàddu yi nga ni docteur Djibi Diallo yëkkati nako euh, ci peut être ñu jëllu ci sentiment d'insécurité insécurité bi est ce que ñi nga xamante ni faat nañu len euh, ci fan yi ñu génnee ni dañ ko wara am sentiment insécurité ci sénégalais yi wala bok ay actes isolés la benn ben waaw man ànd naag euh, sama naataango docteur euh, Jibi ci Jibi Diallo ci ni mu jàngatee euh, ndaxte xam nga parfois dafa am yëg-yëg yëg-yëg bi nag mën na bañ a méngoog li nga xam ne moom mooy dëgg parce que yëg-yëg moom la ñuy wax perception mooy li nit ñi foog yëg ko ndaxte boo xoolee ci benn diir am na loo xam ne xew na teg ci aussi léegi xibaar dara

parce que euh, wax naa ko sànq sa naataango bi ci tubaab gis nga Sénégal gi bëri na ñoo xam ne dañuy juddu màgg euh, génn àdduna ci at yu soree sori te duñu mës a téye pistolet bu weesoo ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu kaaraangeeg yooyu donc du dëkk boo xam ne euh, yooyu mën toll na foo xam ne dañuy wax ne fii kat amul in insécurité maintenant société boo gis dëkk boo gis day am nit ñoo xam ne dañ leen fay faat. loolu aussi dama bëgg sénégalais yi xam ko maintenant faat yi ñuy faat nañ koy xool am na ci faat yoo xam ne lu nit xarañ xarañ mënul fexe ba genre faat yooyu du am ay faat yoo xam ne ay nit ñu xamante la ay nit ñu nekk mbokk lañ et cetera yooyu dafay am ci ab ab ab société maintenant am na yeneen yoo xam ne mën na indi faat yoo xam ne mën nañ ci indi ay saafara wala nuñ ko wàññee mooy yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu koom-koom Euh, ndax parfois bu fekkee ni dëkk bi eh, dafa bëri ndóol mën na am ray gi gën a bëri bu fekkee dëkk bi ndóol gi bëriwul mën na am également euh, euh, ray yi wàññeeku. Mhm. ci yooyu mën nañ ci wax mais di dalal xelu sénégalais yi di wax ne lii dafa dafa am ci ab diir xam nga boo xoolee fukki fan yi ñu jóge rek xëy na ci la yii yëpp am. Mhm. mais doo natt rek ci fukki fan yi natt bi da koy teg ci lu gën a yàgg diir bu gën a yàgg fukki fan yi.

Nous avons wax ñu fay ñu noppi loolu bu amee dina lenn solution bi ci tamit tamit que bakkan bi dem warul dem euh, donc il faut que nous créer ay politique yoo euh, générer ay emploi si éducation il faut que nous ñi di coopérer force de défense sécurité il faut que nous xool ñi di jaay seen bar ak ñi ko jëfandikoo ñu di ñu leen di nekkul lu bon di ko wax pour que ñu mën a jël ay ay ay ay ay kii yu mel noonu. Mhm. di fexe tamit benn nit ñi seen wàllu bopp ñuy communiquer. Mhm. boo demee tey ci kër yi portable boo dëkkee papa day day communiquer day nekk ci téléphone am doom nekk ci téléphone am yaay nekk ci kenn dootul communiquer ñu dellu ci su fondamentaux yi bu ñu waree wax. ñu teg portable yëpp pendant deux heures ci biir kër gi ñu waxandoo. Mhm. comme amul mënatuñu bokk añ bu ñu mënee bokk reer ñu teg ñu xool. leneen li tamit il faut que presse bi

seet formation yi école yi nga xam te ne njàng mi ñu fexe ba formation njàng mi am mu am njeexantal ci maanaam utum liggéey mhm. loolu yëpp bu ñu ko boolee defe naa mhm. xeex Sénébar bi topp programme éducation bi à la base waxtaan ci biir famille yi réguler réseaux sociaux yi vraiment wàññi yi euh, nga xam ne maanaam mooy fake news yi ak sentiment bi ñuy développé te ñuy war a wax ñëpp kenn xamu ci lu mu ciy wax. Mhm. dina am lu am solo. Mhm. force de défense sécurité Sénégal ni ñu téye sécurité Sénégal yaakaar naa. Mhm. amul benn réew bu ñu xamante ne mën nañ la naw. ci côté boobu. bon nag euh, côté boobu moom damay wax toujours que ne. ñun boo demee Sénégal mooy dëkk bi ñu gën a sécuriser actuellement nii ci ci lu mel noonu. Mhm. Sénégal ngay dox ba trois heures du matin quatre heures du matin fu la neex dem. Mhm. donc côté boobu bu ñu xalaat que ne am na insécurité. di mm, perception la rek. Mhm. mais perception boobu dafa wuteek réalité bi. d' accord leer na jërëjëf docteur Djibi Diallo nekk docteur en criminologie ne woon fee jamono sous préfet bu Dakar Plateau Khalifa Babacar Diagne ma jeexale ak yow euh, seetlu gi mooy tey euh, sénégalais dafa ñeme gis deret am na ay jamono bu daan gis deret da ngay daw wala mais léegi. Euh, tu as le sentiment que gis deret du dara ci ñoom lan moo développé sentiment boobu waaw xam nga loo gis rek da nga koy méngale jamono mhm. xam nga man euh, jàpp naa ni euh, sénégalais yi xëy na ku ci gis deret rek doo du da nga koy gisee nu la neexee xëy na da da nga ciy yem wala nga nekk ci bërëb boo xam ne dafa am lu fa am loo xam ne dafa dafa génne deret mais man dama continuer di gëm ne sénégalais yi ñu ci ëpp ñoom duñu ay nit ñoo xam ne dañuy bëgg fitna euh, d'ailleurs li wane ni sénégalais bi euh, gis direct c'est pas lu lu banal ci moom mooy bu ko gisee da ngay gis li muy yëg sénégalais yi ku ñu ci ëpp bu ñu gisee direct da ngay gis ne ñii dañuy crise c'est-à-dire que tàmmuñu ko xa xamuñu ko euh, léegi nag yi nga xam ne bëggoon naa ko ci yokk mooy ñu ñu ñu jéem a yar nit nit ñi ci école yi parce que nit ñi ci yi nga xam ne moom day day wàññi criminalité day wàññi eh, li tax nit du faat bakkanu nit bokk na ci yar yar nag ñu ngi koy ñu koy defee ci kër euh, ñu ngi koy defee également ci école ñu ngi koy defee ci ci ci ci ci société bi société bi nag mass média yi dañ cee am solo bu rëy rëy réseaux sociaux yi également ci contexte bi ñu nekk am nañ ci responsabilité mais réseaux sociaux yi doo leen bàyyi rek ku ci nekk nekk ci di def lu ko neex mm. état bi moo war a jël ay responsabilités ku ci def naka sudul noonu wala nga ciy génne naka sudul loonu wala nga ciy wax naka sudul noonu ñu cybercriminalité woo la def liggéeyam. Mhm. jërëjëf jërëjëf Khalifa Ababacar Diagne nekk psychologue conseiller benn waxtu tegal ñeent fukki simili ak juróom-benn jërë ngeen jëf mbokki ànd ñu ñun ci rajo Futurs média ne woon xibaar yi Fama Dione ci kàddu gi jërëjëf Alioune Ba Maysa Mbaye ak ki nga xamante ni moo di Abdou Thiam dañu foo de Keita. ci réalisation bi du xaaj Ndiogu Diène ki nga xamanteni modi ana Rocha Babacar Fall jërë ngeen jëf mbokk yi yendu ak jam